Bez budelu si, Cher Senghor. Bez budelu partenaires, merci aux sponsors, merci au staff de Jollof Bank, merci à la brioche dorée, joyeux anniversaire Viviane, xale yi di ko xëccoo ak mag ñi. joyeux anniversaire. suñu paree nag Jollof Bank Jollof Bank gâteau bi nag dama bëgg ñu daggante jox xale yi ah. dama bëgg ñu daggante ko jox ko xale yi. merci beaucoup la brioche dorée. kontaan naa kontaan naa ci gunge bi ngeen ñu gunge merci beaucoup. voilà. le fils. waaw mel ni genre ndey màdd rek. ok mais xam naa daal lu frère am la jël. d'accord daf ko ëpp man tamit. ok comme talon yi laa soloon. te ak ñoom a maase. waaw léegi maa ngi ñëw a marché. kon jaratul wax tata Vivi. ñoo nañu wax nag vive vive. yaay magu xale yi. wala vivo. vivo léegi nag xam nga xale yi lu ñu bëgg tata Vivi. lu ñu bëgg. nga taxaw ci digg bi. waaw. nga taxaw ne le. voilà. léegi. xam ngeen ni tey la anniversaire u tata Viviane. tata taxaw xale yi dañu am message buñ la bëgg a jox léegi dama leen di laaj moo bëri doole moo bëri doole moo bëri doole Viviane moo bëri doole tout le monde tout le monde moo bëri doole merci léegi comme Viviane moo bëri doole damay compter ba trois on va chanter joyeux anniversaire est-ce que deux trois c'est parti.

Jolof Bon. Jolof Bon. gâteau bi nag damaa bëgg ñu dagate jox xale yi ah. dama bëgg ñu dagate ko jox ko xale yi. merci beaucoup encore waxtu Yosh Touré. kontaan naa kontaan naa ci gunge bi ngeen ñu gunge. merci beaucoup. monsieur le président. voilà. mes fils. gâteau bi il faut xale jël. dina wax ne nag samedi la anniversaire bi Jolof moom incha allah. Est-ce qu'on peut couper un peu? Voilà, Tata Viviane va couper. Après ñu xool ban xale mooy am chance ñu commence. Ziguinchor anniversaire Tata Viviane ban xale mooy njëkk a mos Ziguinchor Tata Viviane. voilà Tata Viviane qui coupe le gâteau. oh oh. a vu bien qui cuit donc le gâteau. Voilà. Alors. ah ba pare boo koy jox. ah loolu la ñuy seet. ban xale mooy am chance moom mos ci gâteau Viviane. ban xale la ñuy njëkk a jox man ah. nga ban xale mooy am sens mos ci gâteau bi bien mos ci gâteau bi oh voilà faites doucement. ah faites doucement. faites doucement. bon on jox ko sens am. voilà bravo. waaw. mais Pape Cheikh. waaw mais bi bi foofu mu dagg bii gars yi day am lay bii di yaa ni gàttu mais Baye Cheikh bu ko daggee. Uh-huh, est-ce que du ma ko jox. man da koy jox waa Jolof Band. léegi vingt deux ans. waaw ah, ñu jox ko Ibou Mbaye. bientôt vingt deux ans. ah voilà. Tata Viviane. mën sa kawar ci vingt deux nekk nañu ci 22 bi après ñu xool kan la koy jox je rappelle que bu ngeen bëggee seetaan ay exclusivité ci Viviane Chidid abonnez-vous sur sa chaîne YouTube officielle Viviane Chidid officielle. voilà actuellement spectacle bi yéen a ko fay am. en direct Vivi bi kan nga koy jox samedi soir premier octobre. Oh. en direct lay doon ci chaîne YouTube Viviane Chidid. voilà donc beneen paaru gàtt bi dem na ci beneen xale. on continue le spectacle. maa la ko wax. moom Vicky xale yi nag dañ la war a wéyal la parce que dañ ko war a wéyal. ayca comme gàtt bi ñëw na. ate ah, jiite ko xam nga nag yow sa baat sa baat dafa neex bàyyi seex bàyyi seex yaa jiite mbaboor bi ate non dolli rek dolli sa bos moo des sa bos laay xaar kon Mounass ñu bàyyi leen di gâteau bi ngeen jox xale yi. waaw waaw Mounass ak Oumy Ndiaye. ministre de ak Marisa. Marisa Marisa kaay jël seen télé gâteau bi. waaw ñoo leen jox xale yi gâteau bi. léegi am na keneen ku indi cadeau. y a beaucoup de cadeaux mais dafa am ay cadeaux yoo xamante ni mënuñu ko bañ a jël ci Viviane alors où est l'autre cadeau où est l'autre cadeau l'autre cadeau où est l'autre cadeau après on continue le spectacle en attendant samedi King Fahd Palace. Marie-Jeanne may leen Où est l'autre cadeau marisable Faites vite. Voilà un autre cadeau. ah waaw na ñëw na ñëw Xadim xam nga na ñëw waaw kat waaw na ñëw